wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri man abaat tuubaa ca kanam mbokk yi weddi nag gis bokk ci ñett junni làmp tuubaa ca kanam andi na ko ci dëkk bu sell bi di tuubaa ngir lan yokku kaaraange dëkk bi ngir lan leeral dëkk bu sell bi tuubaa ginnaaw bi mu lancé projet naatal tuubaa tuubaa ca kanam yëkkati nag projet leeral tuubaa mbokk yi ñett junniy làmp ñu bëgg buntu kër gu ci nekk borom def ci benn làmp bu timisee mu taal ko bu sëlmalee fajar fay ko def ko addee Serigne Touba ngir dëkk bi leer mbokk yi Touba ci kanam faggu ay làmp yu mujj ay ay làmp LED 30 watt yoo xam ne du consommer dara ci courant ñu bëgg borom kër gu ci nekk faggu ci benn ci njëg yomb di ñaari junni képp kenn ku ci nekk bu jullee timis ba sëlmal nga taal soo sëlmalee fajar nga fay ko daf ko addi Serigne Touba ngir dëkk bi leer Touba ca kanam di woo mboolem ko yaakaar Serigne Touba tam buntu kër ci Touba gi nga fàggu ci benn làmp def ko ci buntu kër suñ ko defee incha allah dëkk bi ni ko sëñ bi bëggee ci wàllu leeraange Touba ca kanam dana jëmmal loola. mbokk yi liggéey baa ngi noonu. Touba ca kanam di ci tàllal loxo mbooleem jullit yi. ngir ay leeral woote leen ci 78 544 33 33 wala 76 268 28 28 ak Touba ca kanam. yàlla ñu sëriñ bi boole ñu bokk ci ñu jëmale dëkk bu sell biri Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat